ma ubbi parenthèse euh, am na lu bees loo xam ne dinaa leen ko proposer dès ce soir ah tey minuit. Mm. damay damay def nuit blanche ci télé bi ah minuit. à minuit 15 je vous donne rendez nan lay demee ci kanam ma wax leen ko mm. mais euh, def leen ko euh, seen seen seen ay agenda ah que tey ci guddi. avant goût week-end bi dama koy joxe. comme nii ñu ko fas yéene defee chaque vendredi ci télévision Futur Média donc ce sera pour tout à l'heure minuit 15 zéro heure ma àndaat ak yéen euh, ci loolu nga xamee ni mooy night show euh, night show bu neex boo xamee ni dafay annoncé euh, week bi li nar a ñëw donc ce sera pour samedi parce que guddi gi la quoi minuit rek. voilà ah, donc bu ñu duggee samedi rek. voilà ma nga nga wane tendance su samedi bi minuit rek ñu ngi samedi quoi. voilà ah, chez tout le monde. chez <laughs> si julli ñun. Euh, fajar c'est à 6 heures ah, waaw bisu fajar. yow ah, fajar la déedéet taxaw nga bëgg maa jaxase. fajar la ñun ci ñun eh, eh, fajar la. eh listen to ban date ngay joxe. booy joxe date I listen to you. déglu joxe booy joxe date. ñee ñee laa joxe. ñan ngay joxe chrétien yi ñoom seen bos laa joxe. bu samedi jotee ak minuit jotee. non non mais mais da ko am na ñaar ñu ñu jullit ñu boole ñu est ce que xam loolu. ñu tax utiliser ko. ñu ngi koy ba pare bëgg a utiliser si ñu koy utiliser. scotché ko. non non non ñu koy eh, eh, eh, utiliser. tu as bien fii ko bële naan. wax na dëgg calendrier musulman. moom day soog a ñëw ba ñu soog ni pratiquant ni musulman. <laughs> calendrier musulman ñu ngi koy utiliser ah, wax na dëgg. ex fin. yow indi li yàbbi li. déedéet dama sama sooy yàbbi yàbbi yàbbi. warax ko warax ko wannal wann. wannal warax ba mu coroxaat. wannal wannal. sëy ba ñu bëri. wannal yow it gaaw. wannal. dafa kole. indi. naanal ndox. kaay ma génne la. yow <laughs> ñoom ñaar wi ñu waa damay obligé taxaw seen digg euh, balaa ñuy en tout cas sama yoon nekku ci ah. man daal tey ci guddi je vous donne vous à minuit 15 voilà donc calendrier musulman ou ou calendrier mais quand même embrassez-vous oh là ci séquence fitness bi parti Alors, notre coach qui nous rejoint tout de suite, <laughs> tout de suite, <laughs> coach euh, coach mu ngi jógee Lady euh, Fitness tey moom euh, mu baal ñu. salaamaaleykum da nga ñu koy baal ah. kontaan naa si yéen. naka suba si. sant yàlla bu baax a baax ah. maa ngi si jàmm alhamdulilah. alors le sport mooy meilleur médicament c'est le meilleur médicament voilà. donc ñu bàyyi la nga proposer téléspectateurs yi. madame Ndiaye. sant yàlla na mën na ay. ñoo la raw. yaa si jàmm man sama ñaari docteur dañ maa exalté. ah waaw docteur Diop nee na. <laughs> naa toog <laughs> docteur Momar tamit. waaw Pape lan nga ñuy euh, proposer ce matin. Uh-huh. comme d'habitude gym bâton voilà euh, bisu defe naa li nga sol war ngaa gym bâton. Mm. gym bâton tey. c'est parti. <laughs> ku amul a amul ku amul comme bâton bi mën nañ ko am ñëpp mën nañ ko am. voilà bale bi ngay ci kër gi. ngay ngay ngay démonter rek. bopp bi ñëpp mën nañ am bâton. champion demal na la tuuti rek waaw. ma demoon plus bâton. allez là allez on descend. allez là on cherche loin on y va. une allez deux. quatre cinq. allez, allez là doucement à côté. championne. une. championne. 4. Quatre. L5, c'est bon. Allez là. C'est bon. Allez là. Là, tout doucement. Une. On y va. Deux. Trois. Très bien. Quatre. Cinq. Six. 7, 8, encore 2, 9 et 10. Allez, restez là. Allez là, doucement derrière. On y va. 1, doucement. 2, 3, 4, 5, 6, encore 4, 7, 8, 2, 9 et 1. C'est bon. Allez là. 1. 2, on y va, 3, 4 et 5. Alors on change rapidement, 1, 2, 3, 4 et 5, c'est bon. Maintenant là, on va essayer de travailler la taille un peu. Là, une seule côté, hein? une seule côté 10, hein? on y va. travaille la taille. 5, 6. Allez, championne. Allez, championne. Allez, championne. Allez. Allez, championne. Allez, Voilà, 3, C'est bien, championne. C'est bien, c'est bien. 8. ay jàmbaar championne ay jàmbaar ngeen. et ñu ne ah. duel rek yow. ok sport rek dafay ah. championne. Ah. voilà c'est bien. waaye ñay jàmbaar lañu sol ay talon di def lii xam nga lii lii vraiment yombul gàcce nga la ma yéen yéen vraiment on oh, vous félicite je suis fier de vous oui oui je suis fier de vous neuf voilà dix fier de vous une bloquée deux oui trois quatre góor baax na jigéen baax na parité allez parité huit oui parité neuf et dix lu góor mën a def jigéen mën na ko mën a def allez parité parité. Eh. góor baax na eh. jigéen baax na allez-y. trois non góor baax na jigéen baax na demal. allez championne encore cinq. oui ñaari loxo yi takk sën ñaari loxo yi takk tubay demal. sept. allez bloqué là allez championne allez. on reste là une. góor baax na jigéen baax na allez. trois. quatre allez carité carité carité. allez là comme ça une. on y va. allez Bessel Bessel yaay jàmbaar. trois. yaay jigéen ju mën góor. cinq six mani doo seet morom. sept huit. xoolal bisu cib. neuf bisu daan nga leen kenn waxu la lii nag. <laughs> tu vois là après après ça te bien. waaw c'est mon champion. oui boum. boum. <laughs> ok. maintenant là pointé pied. ay talon la ñu soldé day métti. bon bii baal nañ la ko bese la. bal lañ la koy c'est en même temps là doucement et doucement on y va même côté à trois on y va une deux allez une doucement deux quatre cinq on y va encore cinq six sept allez allez huit

3 8 2 9 10 bloqué 1 bloqué la 2 3 4 bloqué 5 6 7 8 Allez. 9 et 10 oh, c'est bon. yaay jàmbaar tu vois waaw waaw ok allez maintenant là góor baax na jigéen baax na Là, on travaille complet encore. La championne. Mmh. Mets droite là. Vraiment. Ok. Allez là. Doucement. Une. Go. deux, encore. Trois, on cherche loin. Quatre, cinq. Allez, championne. Six. Go baax na jigéen baax na. Sept. Bismillah, championne. Sept. Huit, encore deux. Neuf, une et dix. Allez, on change rapidement. Ok, on y va. C'est bon? On y va. Et... C'est... 3, 4, encore. 4. On y va. 5. Allez les championnes. Encore 2. 9. 1. Et 10. C'est bon. Et là, On va faire de squats. Travaille les en même temps. Allez là. Une. Deux. On force pas. Trois. encore. 4. On essaye. Voilà. 6. 7. 1. Et 8. Et stop. Maintenant là, on travaille les chevilles en même temps. On essaye doucement sur la pointe des pieds. 1. Voilà. 2. 3. 4. 5. 6. 7. et 10. Allez, Bessel. Ok, voilà. maintenant là, on va essayer de faire comme ça. U, après là. U, là, ça travaille les bras plus les épaules en même temps. Doucement, on y bouge en même Deux, ok. Trois, quatre, Six, sept, huit, bloqué là. Allez, restez là. Une. 2, 3, 4 et 5. C'est bon Allez, on change rapidement. Allez, championne. 1, 2, encore. 3, 4, 5, 6, encore 2, 7, Allez, 8, on bloque là. Allez, 1, reste là, 2, 3, 4 et 5. C'est bon. Voilà. Allez, là. 1, deux, doucement. Trois, quatre, instant bi sama. allez là. ah coach bul na nga ñëw seet si tu commences à tousser. trois, quatre, instant bi là côté. une, yeah, deux, trois, quatre, instant bi on championne. instant c'est bon. voilà maintenant là on se tire encore. étirement avant sport étirement après sport. ewa. après nag waaw waaw allez champion góor baax na jigéen baax na. waaw waaw champion. oh. allez-y allez-y. ok ewa. Eh, deux ah félicitations champion. instant allez là on y va une deux. waaw. quatre waaw. instant. waaw. c'est de tout pour aujourd'hui hein. ce sera tout kay. à l'état. waaw waaw. oh là là ah je suis fier de vous ah. d'ailleurs tu vois ça te fait du bien. l'espoir c'est le meilleur médicament. c'est le meilleur médicament. dana def espoir. Mhm. sportive la. ok championne. merci coach du courage ah. merci. non <laughs> Pape. voilà nga nuyu ñu lay di. amul benn problème incha allah suuf écran bi pour ñi nga xamante ni. ñoo fa euh, bëgg a dem. Euh, pour def euh, ay ay sport pour def sport voilà am na solo. ñu leen di bégal ba léegi sonn ngeen de ah. man xaw naa dee man moom xaw naa dee. détecteur de mensonge. moom maa ngi bëgg a dee. yow li nga def bu ne woon moo ma gën a sonn ah, machine bi ne boum. sonn ba. c'est ça en tout cas euh, bu leen